si Lailatul Qadar. Father,

loolu doonoon lu méttee métti ba alquran sax àddu ci boo demee ci suuratu takwir ci aaya juróom-ñaar jàpp juróom-ñett suñu boroom subhaanahu mu fay wax ni wa izal maw'udatu su'ilat bi ayyi zanbin qutilat ni waaw jigéen ñi ngeen di rey di leen gas di suul ana ban bàkkaar lañu def ba tax ñu war a méritoor yi kon cosaanu jigéen lu metti la woon cosaanu jigéen lu diis la woon cosaanu jigéen lu doy waar la woon dem naa dem sax ba ku masaan am soxna mu toll ci gis mbaax danga koy génnee kër gi muy taxawaalu ak wëndeelu du am sañ sañu rugga cikër gi li fay muy set fitna yooyu yëpp jigéen doon na ko dund lu jiitu lislaam di ñëw lislaam ñëwee nag jële fi yooyu yëpp andiwaat jigéen ci société bi delloo ko ak cëram jox ko xàq ji yàlla ci moom kon mboolem lu lislaam di digle rek jigéen kenn waru ko cee jiitu jigéen a war a dàq julli jigéen a war a dàq woor jigéen a war a dàq aji jigéen a war a dàq natt azaka jigéen a war a gën a jub jigéen a war a gën a maandu ndax am na cër boo xam ne ci lislaam góor sax amu ko te jigéen am na ko ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne yàllaa ne lu mu wax dëgg la du waxee mukk bànneexu ba kanam wa maa yantiqu anil hawaa in huwa illa waxyu yuuhaa mooy yonent bi lu mu wax rekk dëgg la te moo ne ci xadis bu wér boo xam ne ibnu barizan moo ko soloo ñu jigéen bu respecté ñeenti yëf rekk dugg aljana إذا سلك مرء خمسه وسام شهره وحفظ فرجه وأطاعت زوجه دخل الجنة لجيجير بجل وقت جروما woo weeru kooram ñoŋal am topp jëkkëram rekk dugg aljana te loolu góor sax amu beneen bi ci topp nag mooy ak quatorze saar la waaye amul benn saar bu ci yàlla tànn tuddee ko góor ñi suuratul rijaali amul ci alquran waaye tànn naw saar tuddee ko jigéen ñi muy suuratul nisaa yi loolu doon beneen cër boo xam ne yàlla jox na ko jigéen ñi te yonent bi alayhi wasalaam mës naa dem kër saxaaba bu ñuy wax abdullahi ibnu ruwaxata ne ñett gënal ci kaw suuf te ñett yooyu kat benn bi jigéen la kon loolu lépp day tegtale cër bu yàlla jox jigéen ci lislaam te jigéen a njëkk a gëm yonent bi alayhi salaatu waaye it jigéen lañu njëkk a rey ci lislaam kon loolu lépp day jàngale ni cër bu ne jigéen mën na koo am ci lislaam ci kaw mu xam li yàlla digle nu mu koy jëfee xam li yàlla tere nu mu koy wattandikoo te loolu dara mënuñu koo may lu dul sàkku ji xam-xam ñun jigéen ñi nag fii seytaane ma ne mooy dafa fexe ba dugal ci suñuy bopp kani waruñoo sàkku ji xam-xam te pour xam digal góor ak li mu digal jigéen lenn ndigal li rekk la yaa ayyuhal lazina amanu moom foo ko fekk góor ak jigéen ñoo ci bokk yam wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma kon loolu góor ak jigéen ñoo ci bokk yam te jaamu googu du mën a wér mukk lu dul ak xam nga koo moo tax suñu borom subhanahu wa taala wax ci xadiisul qudsi yu ne taarifuun qabla in taabuduun fa in lam yaarifuun fa kayfa taabuduun xam leen ma balaa ngeen maa jaamu ndax bu ngeen ma xamul nu ngeen may jaamu kon loolu góor ak jigéen ñun ci bokk yam ba tey alquran wax na ni man amila salihan fa li nafsihi wa man asaa fa képp ku jëf jëf ju yaa ko moom ku jëf safaan wa yaa ko moom kon loolu góor ak jigéen ñoo ci bokk yam boo demee ci suuratul ahzab sax fa la gën a leeree ndax fu yàlla tuddee góor dafay tudd jigéen innal muslimiina wal muslimaat wal mu'miniina wal mu'minaat wal qaanitiina wal qaanitaat bani aaya bi daanu fu yàlla tuddee góor rek dafay tudd jigéen boo demee ci tazawudu shubaani Sëriñ Tuubaa mu ngi fay wax ni yaa ma'ashara shubaani إن خفتكم خجل faqaddimu taaluman ala amal yéen waxambaane yi bu ngeen ragalee gàcc lépp lu ngeen di jëf na ngeen ci jiital ak am door caa teg jëf waaye da cee teg lu am solo muy faqaddimu ala qaidi sunniya mooy xam-xam boobu ni ngeen ci jiital pas-pas bu sell bu dara raxul te mooy pas-pasu ahlu sunna mooy pas-pas bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon ak i saxaabaam bi Sëriñ Tuuba ñëwee it ko nekk ci ak i saxaabaam ndax mboolem coow li am ci lislaam yépp ñàkk pas-pas bu sell rek ko ko waral te nag dañ koo war a jàng xam ko ngir rafetale ko suñum jullit waaye it rafetalee ko suñu taalibe xam fan la ñuy teg suñu ànd ndax jamono ji liy fëkke bari na liy nduru dara te du dara it bari te lenn rek ka ñu ci mën a dimbali muy delluwaat ci jàngalem sëriñ bi moom la sëñ Mbay Jaxate di wax naan woote yi wuute na ak wuute nag du fi jub puy wuy war naa seetlu kay woote la muy woote te mboolem woote yooyu yëpp ak mboolem ku ma sa woote gannaaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam Serigne ci gën a réussir te résultat ndax baax rek yomb na waaye baax baaxali kenn fekku ci Cheikhul Khadim defar Serigne Mbacke Bousso mu defar ay junniy junniy junniy nit defar sëriñ Adama Gueye mu defar ay junniy junniy defar sëriñ Massamba Diop Sam mu mu defar ay junniy junniy defar maam Cheikh Anta Ibra Faty rakkam mu defar ay junni junni junni defar Serigne Aliou Touré barakallah mu defar ay junni junni defar Serigne Mouhamadou Lamine Gueye Firdaws mu defar ay junni junni junni defar Mame Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babou Ndeye mu defar ay ak ñeneen ak ñeneen ak അതിലേക്ക് ശ്രീ കുമാരൻ Valentati, Valentati, Valentati, Valentati. fecc ceeru jot Sëriñ Tuuba dani li ñuy tuddee ndey maa koy dooree ñam kooku doy na référence soxna Aminata Lo waaye juru Sëriñ Modou Moustapha ak Sëriñ Baara nga xam ni ak ruuxam la tayle maanaam bakkanam la joxe ngir Sëriñ Tuuba dund kooku doy na référence soxna Aminata Lo waaye juru Sëriñ Fallou nga xam ne lu Serigne Touba mën ci góor ñi Awa Bousso mën na ko ci jigéen ñi kooku doy na référence soxna Mariama Jaxate waaye juru Serigne Abdoul Ahad ak kooku doy ak jamono kooku doy na référence kon ñun Serigne Touba defaral nañu lépp amul lenn lu ñuy jéggaani fenn di ko fa uti tey taalifal nañu ay téere xam-xam yuy jàngale fànn yépp nga ni ko ndaw laa mu taalif te zawdu siraar jox la nga ni ko waxambaane laa mu taalif te zawdu shubaan jox la nga ni ko ay teggin laa bëgg am mu taalif naf ju xadaadil jox la غني كسم كل لا بغير ها مطالف مزالك الجنان جهلا غني كجلك أتم لا بغير ها مطالف الجوهر النفيس جهلا أكيني أكيني أكيني تالف أي تيري توحيد تالف أي تيري فكر تالف أي تيري تزوف غني كجانب ما أراد مكين سن بيجا هذه ملاي سونيو شوالو يالو عندي سن مساكر mu lay soññ ci bëgg Serigne Touba indi sëñ Momar Kayre mu lay konkul lépp lu ñu laal ci yoon wi indi Cheikh Massamba Diarra Mbaye mu yokk sa cofeel ci Cheikhul Khadim ci kon ñun Serigne Touba defaral nañu lépp am ko te xamoo ko nag ñàkk ko te xam koo ko moo tax soxna may kabiir mi wa man tamakkasa bi cheykhina bila shakkin wala taraddudin naalal ula képp ku jàpp sëriñ Tuuba te sikki sàkkawuloo déng déngewuloo di nga amuk yëkkatiku àdduna amuk yëkkatiku àllaaxira ñu ne ko lu tax mu ni li annahu xayrun mina suudaani fi sharqi wal maghribi wal biidaani ñi yàlla bind ñuy nit yu ñuul ku mel ni Serigne Touba amu ci ñim bind ñuy nit yu weex ku ni Serigne Touba ñi féete kaw ku mel ni Serigne Touba amu ci ñi féete suuf ku ni Serigne Touba amu ci ñi féete penk ku mel ni Serigne Touba amu ñi féete sow ku mel ni cheikh ahmadou bamba xaadim rasul amul loolu soxna may kat yi ko wax moo tax mbay jaxate ni alhamdulillahi ngeem doon luy dal ku ànd ak sëriñ tuuba ëllëg na ma dal képp ku gis ki gis ba seeti keneen demal ma dem ba ma rek dal sama xel dund ci doy sul de mo ma ci doy bisub lijjanti ba tuubaa rek katal sama xel mom dal lañu sax ci ndigalu suñu borom yi bu ci kenn watandiku yi tereem yi bu ñu ci kenn gis ndax nag mooy rafetal ak murid iya, iya, iya. ak murid ba ak murid jeex génnul lislaam te japp serigne touba mi suñu fukki loxo ak juroom ba mel ni Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom de kenn tudd lislaam te tuddoo ko mu'min la muslim la muhsin la murid saadix la lislaam mënu koo jëm ci benn fànn bi mu ganisee àdduna gërëmool yàlla la indaale ba Sëriñ Tuubaa ku mën aw sa yaram araamal kon kooku kenn mënta tudd lislaam te tuddoo ko waaye nee na ak wóolu ak yaakaar ak ragal Serigne Touba rek laa ko def Serigne Saliou Mbacké nee na yëg na ni bokk na ci xéewal yi ko boroomam xéewale muy teel bëgg gi mu ko teel a bëggloo Cheikhul Khadim laqad razaqtani llahu mahabbata cheikhi قبل ان اعرفه موي بما يالا خيوله مي بغ سيرن توبا بوبو خماكو سيرن توبا سيرن فالو مباكي نين سخ دموعي لحب القديم اراه فرقا نين بغ سيرن توبا بوم جرال لا اي جوي من الله دي فالو مباكي فرقا لا كو جابي yàlla yàlla yokk leeram nee na kullu xadiisin ala suudaani muftaradun bëgg Serigne Touba ci nit ku ñuul farata kon nanu bëgg Serigne Touba mi nanu wóolu Serigne Touba mi nanu yaakaar Serigne Touba mi nanu doyloo Serigne Touba mi mam jaare ñang jërëjëf naa jàmbaare rek waaye thème bi thème bii mu doon waxtaane moom ñam ko mane am na ñu ko ko dàq foog waaye tirage lañ def mu gañe tirage nag xam nga bu amee moom bu xas def sant seen i waajur ndax ñoom it suñ ko bëggoon na seen i waajur bàyyi leen ci duñ ko man kon waajur yi nga xam ne nii ñoo leen meññ ba pare nangu leen a bàyyi ñuy dem di gëstu ji xam-xam lu leen di jëlee kon ñoo ngi bi nga xam ne nii moo mooy mooy jiwluñu soxna daayira yi mooy jox décoration maam Bousso ginnaaw bi mu waxtaanee ba pare bu koy jox décoration moom soxna Adama loolu di jiwluñu soxna yi soxna Adama bisimilah. soxna Adama soxna Adama Lo kon mère Lo mi nga xam ne mooy waajur bu jigéen mooy yëg moom. ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw. waaw dafa mel ni xol yëpp yëpp ndax li ko jar rek moo ko jar te li ko jar nekkul lenn lislaam li dundal lislaam te xale bi nga xam ne nii moo fi doon waxtaan. ñëpp sant nañ ko rawatina ay waajuram moom moo ko jiite ñu war a décorer Diouroupé Ndiaye Diouroupé Ndiaye moom su ngay décorer coono bu nga xam ne nii boobu léegi ñu ngi koy daj ci daayira a wut suñu ndax ñu koy sëñ bi bu bu xeesaasee su ko neexoon mu ne dama fay ñëw liggéey si rek daa bàyyi rek ñii jëwriñ boo daanoo ñëppay daanu kon nga dimbali ñu ci daanu rek dafay mel nag eh, yor temps te temps bi moom xaaruñ waaye dafay fay lu mënta ñàkk nag ñu di ko def kon sëñ daal ñu ngi def xam naa jëwriñ bi ñu la ko solal moom suñu yëpp la neexee